imaginel ummi mu am tànk di jaagar jaagar yi takk ñetti bit bit cristal yu bes yi def wari ngi ku na da koy ñàkk wërsëgam day tëju boos moo war a liggéey te bàyyi yalwaat gi jàpp ummi di ko utiliser rek di ko yóbbu ci tele yi jàpp yaayam dugal ko ci valise yi di ko diri télé bu moo dem ubbi ko yaayam génn bi di muus toog ci kaw naan moos ba ma mooy am at bi nangam nangam ñu cëkk ji lay wër handicap yi fi mu toll yi dafa iñaan lànk ne ummi bu mu am tànk lu tànk ummi bi gën a cëkk ba yegg si lëf li rek jël bu ngeen ko may wun nag levé handicapé yi nekk ci senegal yëpp dana ko jeexal utiliser leen ba non man